réaction yi doon benn mu mel ni lu ñu yàgg xaar Ama Ndiaye ñu fekk ko mu toog ci place liggéeyukaayam di rafetlu ni waa coalition Yewwi Askan Wi renoncé yi la manifeste quatre-vingt-quinze pour cent sénégalais ci secteur informel lañu yëngu te tam période tabaski la ñu nekk jaaykat xar yi boo boobaa seen xar yi du nekk en sécurité quatre-vingt-dix mu toll ni population yi ñu ngi si tali bi di wut lu ñu am ñi nga xam ne ni tabaski moo tax ñu ngi ñu génn lal ci tali bi pour jaay pour mën a teral seeni njaboot donc bu ñu manifestation amoon ñoo ñëpp mbir bi dina leen touché te bu boobaa du ñu am lu ñu tabaskee donc li ñu def nii franchement parler kontaan naa ci te ànd naa ci système bi jël mooy casserole yi boobu moo gën a civilisé daal te moo ëpp jàmm ku nekk taxaw sa buntu kër fëgg say casserole wane ni yow kontaanoo ci nguur gi. Adama Niang jàpp ni li waroon a am bu yàgg la. dañoo def li ñu war a def. mais nag yéexee nañ ko. parce que jamono li ñu war a def mooy ñu concentré wax nit ñi ñoo fan la ñuy ëllëg bu ñu yoree. loolu moo gënoon ñu nekk fi di tëj

askan wi xam leen ni daal dinañu annuler seen manifeste yi ñu naroon amal ngir concentré wu ci élection député yi ñu jëm lépp ci apaiser tension yi ci réew mi